lu neex borom ku neex borom Mbàkke Kajoor maam Baara mooy waliyu njaamura Kajoor yéen gaañu baax ñi fexe leen jubook Muhammadu Lamin bokki réew mi bokki bitim réew ñii ngeen jàkkaar lool Serigne Moustapha Cheikh Sidil Mokhtar xalifab Cheikh Mouhamadou Lamine Baara toog ngeen jàkkaarloog moom mu ànd ak rakkam wax na leen ni noo ngi waajal bis bu rëy bisu bu màgg bisu xéewal bisu teraanga bisu independance yoonu murit gane àdduna Cheikh Modou lamin Bara kañ lay doon nag ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru janvier ca Mbàkke Kajoor ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balu ak di leen nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ni mooy jëwriñu Cheikh Mouhamadul Amin Baara et ñuy yëkkati suñu kàddu nag di woote ci bis bi nga xam ni mooy màggalu jumaadul ula tamit bis bi ak Cheikh Mouhamadul Amin ibnu Xaadimu Rasul gane àddina muy bisu ndimbal di bisu paj aajo di bisu tawféex di bisu xéewal Cheikh Moustapha nag di ko woote ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ni tey moo tooge jataayu cheikhul xadim ak ci turu ki nga xam ni kilifteefu bay ahmadou maxtaar mi nga xam ni mooy kilifa kër gi mu ànd ak njabootu cheikh mohamadou leen baara gi yëpp ak njabootu cheikh modou mustafaa gépp ak cheikh yeeg jullit yëpp di ko woote muy ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru olof bi ñu nekk ñu koy wax rakaati gàmmo te muy jumaadal ula incha allahu mu fas yéene tombe ak ñaar fukki fan ak ñeent ci mois de janvier bi muy le 24 janvier sëriñ bi di ko yëgal mboolem jullit yëpp rawatina kilifay diine yi waaye rawatina njabootu cheikhul xadim xalifay doomi cheikhul xadim yëpp sëriñ baa ngi leen koy yëgal di ko yëgal cheikh cheikhul xadim yi di ko yëgal taalibe yi fédération daaira yi rawatina ñi nga xam ni dañoo tënku ci biir kër cheikh Mouhamadul Amin Baara di ko yégal itam xalifa yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal Euh, te ngànk diine l'islam bi sëriñ baa ngi leen koy yëgal te di leen ci wow di ko yëgal association islamique yëpp bàyyiwuñ ci kenn di sàkku ci ñi nga xam ni mooy atti diine yi ak daaray kaamil yi ak ñi nga xam ni ñoo yar taal jàngu yi di jàngale alxuraanu karim ak fépp foo xam ne ab jullit a nga fa wala daaira te mën a jàng alxuraanu karim ñuy sàkku ci yow nga jàng alxuraanu karim te yéen a yool ba cheikh Mouhamadul Amin ibnu Xadim Rasul ak bépp jullit boo xam ni mi ngi barsàq te ñu yéene jàmm ci biir réew mi sëriñ biit mi ngi ko yëgal son excellence président Macky Sall te di ko ci woo mu jàpp ci ba mel na mu daan mel di ko yëgal ñi nga xam ni ay ministre lañu di ko jaarale ci ministre de l'intérieur bi nga xam ne moo yor lépp lu affaire culte yi ci ñëpp di ko yëgal Moustapha Niass mi nga xam ni mooy président assemblée nationale ak mbooleem député yi fa nekk yëpp soxna Aminata Mbengue Ndiaye ñu ngi ko koy yëgal ñoom bokk région de Louga yi ñu koy defee mooy président du conseil euh, au conseil de la collectivité territoriale ñu ko jaar sëñ Sidi Mbacke Abdou Aziz di ko ci woo di ko yëgal conseil yëpp di ko wax itam soxna mi Aminata Touré mi nga xam ni mooy président conseil économique social ñu ngi ko koy yëgal te di ci woo conseil yëpp di ko yëgal ñi nga xam ni itam dañuy yëngatu ci wàllu politique ñoom ñëpp ñi leen ko yëgal bàyyiwuñ ci kenn ñi ngi ci wow jullit yi xarit yi am na jàmm yi bàyyiwuñ ci kenn di ñëpp ñëw ci bis boobu ndax bis bi bis faj aajool waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ajjuma le 17 janvier ci la ñuy woote mbale mi ñu di ci woo ñëpp ndax dara gënta nekk farata dëkk ba set bëcc tañ tañ tañ ñaan nit ñi ànd ci ak pas-pas te xam ne loolu ñuy def di bale si bu fekkee ne da ngay dox ci kaw yoon ba fekk bant boo xam ne mën naa gaañ nit nekk ca kaw yoon wa nga doon dox rek nga toppale ko mën nga caa man nga caa dem ca àjjana ba ràmm ci ay dit kon nag rawatina lu toll ni ab dëkk ku ko setal mbooloo mu tal noonu di fa wàcc. fooy wan nekk daal dégg suñu kàddu wala mu gis ñu ñu ngi ko ci woo moo xam mbokk la wala rek am na jàmm ku mën teewee rek nga teew ngir jëm Sëriñ Tuubaa képp ku fa ñëw suñu borom jëgal say bàkkaar sàmm sàmm sa njaboot ñi fi ñëw suñu borom sàmm li wattu leen ban dellu seen njaboot parce que Cheikh Mamadou Lamine ñu soññee ñi ma féete ci ñi may seen bunt ci sëriñ bi. ci kër Mawlana Cheikh Ahmadou Yane Mbacké fédération bi ñu jiite mu tudd jamiat li taawun alal birri wa taqwa fi ci xidmati Xaadimu Rasuul fu nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di soññ ci sama tur ak turu sama jëwriñ Xaadim Mbacké Abou Madiana ak Mouhamadou Bassirou Diakhaté ak waa kër soxna Seyna bu Baara gépp ñaan ñu fonk bis bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Eh, ñu yëkk sunu kàddu nag ci turu sëriñ Abdul Karim xalifa Cheikh Abdoul Aziz Bara mu di leen woo nag ci bisu màggalu Mbàkke Kajoor gi eh, di ci woo taalibe yëpp ak mbokki julli yëpp képp koo xamante ne nii yaa ngi fay ñëw na nga sàmmonteeg orma nga xamante ne nii moo fa moo moo moo fa nekk lépp loo xamante ne nii dañ koy tere itam. nañ ko moytandiku bu baax a baax di ñaan yàlla képp ku fa teew yàlla fay say ay ci barke Seex moom leen baar jërëjëf di soñ suñ bopp di soñ ngi seqeel kër sëñ seen xam ne suñu bis la xam noon yàlla danoo féetale kajoor kon daal la doon ko waajal te ñoo ngi soññi daayira ndakaaru bi ak waa bitim réew Italie ak waa kajoor gépp waa du xanakat asalaamaaleykum ma ci soññ nag njabootug Serigne Cheikh Thioro Mbacke gépp fu ñu dégg kàddu gi ak fu ñu gisee jëmm yi fuñ mën a nekk biir réew bitim réew nañ bàyyi lañ jàppoon lépp xam ni bisub jàmbaar ja yegseeti ne ki nga xamee ni moo tax ñu lépp ñun kon nañ bàyyi loolu te dégg kàddu gi te fonk ko te jëfe jooju ndigal loolu daal moom lañ doon doon leeral ci bis bi waaleykum salaam wa ci ndigalal cheikh Mouhamadul Lamine ibnu cheikh Mouhamadul Bachir. mi ngi ciy soññ ñépp waaye rawatina kër seex Mouhamadul Bachir ma rawatina kër cheikh Mouhamadul Bachir Khoudia euh, képp koo xam ni nee na yaa ngi aju ci kër gi euh, ak foo mën a nekk mboolem taalibe yi aju ci kër gi fu ñu mën a nekk mu ngi leen di soññ kon ñuy ñaan rek képp koo xam ne teew nga fa. yàlla na si yàlla faj sa aajo saahir rek baatin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waa kër sëñ Modou Bara nag ñu ngi soññi ñëpp ñi nga xam ne si aju nañ ci ñoom muy góor ak jigéen mag ak ndaw ndax amuñu lu dul bis bu sëñ Bara kon na ci ñëpp teew na ko ñëpp def seen farata waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi am mbégte yëkkati suñu kàddu ci turu sëriñ Modou Bara mi yëkkati kàddoom ci turu njabootu Cheikh Abdoul Khadim képp képp koo xam ne bëgg nga koo defal njekk mbaa mu defaloon na njekk nga war koo fay li ko gënal nga defal ko ci bis bi nga fay ko ci bis bi kon mi ci woo mboole mbokki taalibe bi yëpp ak wëllëre yëpp ak xam di jàmm yëpp di ñaan sunu borom tabaraka wa taala képp ku fa teew yàlla sunu borom faj sa aajo bi barakati Cheikh Mouhamadul Amin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñuy wax ci kàdduy ndigal yoo xam ne mu ngi tënku ci kër sëñ Amar ak kër sëriñ Sidi Mbacke yëpp di njabootu Cheikh Mouhamadul Amin Baara ñuy soññi rek ci bis bi nga xam ne gannaaw yàlla bari na lu yëngu ci murit gi nit nekk fa mu nekk muy yëngu te xamut lu ko yëngal waaye loolee ka ko waral mooy Cheikh Mouhamadul Amin Baara ak ñëwum jamono bis boobee nag la ñuy fàttaliku moom mooy yegg si waat ñu nekk ca fas yéene teewe ko taxawe ko. lépp loo xam ne moom lañ ca sant muy lu baax ñu fas yéene taxawe ko ñoo ngi leen ndokkeel di leen gërëm di woo ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe di sëñ Lamine nee mu ngi woo képp koo xamante ne bi aju nga ci kër Cheikh Sidi Mouhamed Baara nekk ci réew mi nekk ci bitim réew ci bisub suñu jàmbaar ju tedd ji di Cheikh Mouhamed Lamine mi nga xamante ne bi amul lu dul moom kon nag euh, sëñ lemin nee na képp koo xamante ne bi aju nga ci kër Cheikh Sidi Mouhamed foo mën a nekk rek biir réew mi ak bitim réew mi ngi la ciy soññ waaleykum salaam wa di wax ci tuuru njabootu sëriñ Sidi Mokhtar gi di leen tàmbaleeku ci sëriñ Xaadim Mbacke di yëkkati suñu kàddu ci seen digal di wax rek ni ñi ngi woo mboolem koo xam ni e, danga bokk ci njabootu sëriñ Sidi Mokhtar góor ak jigéen mag ak ndaw moo xam taalibe yi comme ci mën a doon ci daayira yi ak njaboot bi ñëpp sëñ baa ngi soññ ñëpp di wax rek ni bis bi bisub Cheikh Mahamadou Lamine Baara la amuñu lu dul moom kon képp koo xam ni sëñ Sidi Mokhtar mooy su bunt ci sëriñ Baara ñoo ngi lay soññ ci bis boobee di la ci woo lépp loo jàpp nga bàyyi ko ci fas yéene caa teew gorel na waa Mbàkke Kajoor ba yàlla fa di fuur ngir ñu tabi dal misaal mi war na kuy xalaam